plateforme yi dafa am heure yu ñuy dugg ci tiktok am heure yu ñu dul génn ci tiktok dañoo créé tiktok xale ak tiktok mag pour xamal leen yéen sénégalais yi africain yéen ngi tiktok di golo def leen neex ñàkk seen temps du gën ci am xam-xam du gën ci am dara golo golo lu cëppi cëppi kenn ku nekk ku nekk di jaay sa morom sama maama gën a nekk sa maam golo te tiktok ay chinois ñoo ko moom chinois yi ko moom ñoom seen doom yi bu ngeen demee ña ngay def di def ay ñu jàng-jàng yu xarañ du ngeen gis mukk ab chinois ci tiktok bi benn chinois du gis wala bu chinois bu ngeen gis ci tiktok bi lu am fulla lay def waaye chinois buy golo gololu ci tiktok du ngeen ko gis mukk koo gis muy golo gololu du lonk lonkol ab dàngin bu ñuul kukk la bu nekk ci biir tiktok bi dëkk Afrique di golo gololu waaye chinois yi ko defar ñoom ñoom xam-xam lañ ci wër xale yaa ngay jàng def physique quantique def physique def chimie def mécanique dégg nga maam def robotique intelligence artificielle tubaab yi def médecine def science dem dans l' espace tubaab yi léegi chinois yi ñu ngi dem espace léegi ñu utal leen nag yéen africains yi utal leen ay gadget ay tiktok ngeen nekk fi ku nekk di photo di gis sa bopp wala ngay wax ñëpp di la dégg nga yaakaar na star nga ngay tëbaka dal di golo golo gololu yaakaar na yaa ci nekk fekk yow nit ñaa ngay dem yow demoo yëgoo lu xew te yow mi koy def sa dëkk bi nga dëkk ngay golo golo lu da ngay jël dix neuf mille tonnes wala boog dix neuf mille kilos d'or dix neuf ton or la ñuy génn ci sa réew Sénégal dugg at mu ne te loolu mooy li ñu wax officiellement waaye buñ ne la dix neuf tonnes la ñuy génne Sénégal jàppal ne daañu génne Sénégal chaque année lu mat quarante tonnes ci ay or muy quarante mille kilos ci or def seeni piste indi seeni avion ñuy wàcc ca dugg ut seen héliport foofu ut armée bu leen di garder yor ay fetal yor seeni ay sécurité bopp di gas or bi di ko def ci ay lengo di ko def ci ay avion muy départ Kédougou jëm envers wala Paris direct du jaar sax Dakar 19 tonnes lañu ñu déclaré 2020 xawma 2022 soo ko xaymaa mi ngi ci 600 milliards ñoom li ñu wax ne moom lañu génn ci or ci Sénégal rek mi ngi ci 600 milliards. te bu ñu la nee loolu la ñu génne génne nañu lu ëpp loolu double bi la ñu génne ñaareel bi ñaar bi la ñu génne ñoom Omar Sarr Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Balde Macky Sall Mariam Faye Sall ñoom ñoo moom mine yi ñoom ñoo ko séddoo ak Madické Niang bi mu nekkee ministre des mines ci Ablaye Wade Macky Sall nekkoon ministre des mines ci Ablaye Wade jël am ay minam Madické Niang nekk ministre des mines am ay minam Abdoulaye Balde nekk ministre des mines am ay minam Omar Sarr nekk tey ministre des mines Macky Sall mi ngi ak ay minam Aly Ngouille Ndiaye nekkoon na ministre des mines am ay minam ñoom ñëpp koo ci jox ministre mu dem ah, mu dem Kédougou négocier fexe ba am ci or bi ñoom ñëpp ñi ngi ak seen ay lengodo yu seeni i milliards yéen ndaw ñi yéen yaay yeeg papa yi ngeen nekk ci TikTok bi di tëbëkadal cëppi cëppi mel na ay golo lekku leen naanu leen. ñoom ñi ngi yor seeni milliards seen doom yaa ngi noos ñi ci xaw a taxaw tuuti na ñoom kat dootuñu mën a dund jafe-jafe yi ci réew mi dugg ci gaal gi dugg ci géej gi dee jën yi lekk leen wala ndom mi génnewaat leen bés bu nekk ñu ne fukk dee na ñaar fukk dee na téeméer dee na ci géej gi yéen ñëpp yéen a ngi dee ci géej gi lu tax yéen waa lay waxal lu tax ndax li ngeen war a xam yitteelu leen li ngeen war a def yitte defu leen ko yitte. li ngeen war a taxaw pour seen àdduna baax ngeen dund def leen ko yéen a ngi ci tiktok bi di golo golol di ci partager ay siyaar en général ay gàmm ay màggal ay cant ay bësi sëriñ mbàkke mbàkke ku sant si yeeg seen yëfi làppato yu doye di yooyu moom ngeen nekk ci biir tiktok bi ak dégg nga maam di di yu kenn xamut yu kenn xamut jamono boobu chinois yi japonais yi américains yi ñëpp nga ca école yu baax yi di jàng bu ëllëgee ñoo leen di yilifaat seen morom yi ngeen maaseel ña ngay dugg ca seen capsule dem ca planète Mars Jupiter di xool nu ñu fay dundee ëllëg di gas suuf si di génn or ak jamono lépp ngeen fecc ko way mel ni ay golo te kooy ki ne maam golo la mu meral la waaye seeni jëf yëpp dafa méngoo jëfi golo ku leen ko wax ngeen mer.